yaa ngi jëfati ah Laurent jërëjëf lakk nga day gi ngi a comme jërëjëf encore une fois ça c'est une fierté ça donne xool ni c'est le moment mu sargal la bu ko defee Sénégal yëpp nga ko defal jërëjëf jërëjëf Laurent yaa ngi leen a comme yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàlla nag ya, fi yàgg te ànd ak wér ma lay xamal ni nag yaay loram ba ñu mu waxtaanee mu juboo mention spéciale ndax bëgg laa sargal moo mu bàyyi lépp lu mu jàpp jóge fii jóge Europe ñëw bi mu ñëwee nag gis na condition yi ni mu demee dafa njëkkati sama xaalis global daf ma ko fay dese lu ma mille francs

liggéey am na solo waaye na la xamal na la xamal ni doom ju baax nga am doom ju la yëg la doom ju la yërëm la te comme demee na noonu man moom mu soobee yàlla sama participation def naa ci participation ma carte devise incha allah. Amady Amady Amady mereka sama uma participação de uma na passa uma deles. O seu é parce que na vida foi su ko neexoon su ko neexoon mu jël lépp def ko ci posam nee bu ko ci 1000 francs barki démb dafa ñëw mu ko dara li jàpp na est ce que duñ ko ba ci ba mu ne mu ci 1000 francs dama bëgg Sénégal suma yaay donc

yaa tax xam loolu yaa ko jàppanteeg moom yow yàlla dafa dogal sama nit yëpp man aw ma jot yàlla di suivre léeg-léeg sax moo tax ma wóor la pour seedal la nii aja laa fekk ko ci